mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi safoo bàyyi xel Senego TV di leen jaajëfal tey nag ñoo ngi fi am suñu entretien exclusif ak ki nga xam ne moo nekk Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye di magu euh, Lat Grand Ndiaye di policier boobu nga xam ne moom la ñu faatoon ci yoonu Tëngéej bi ñu bàyyi Lat Grand mu nuyoo. Euh, Seydina maa ngi lay fay di nuyuwaa waa Senego yëpp. di la jaajëfal bu baax. ndax mën nga dellusiwaat ci accident wala deewu Lat Grand nan la demee effectivement Lat Grand Ndiaye dafa demoon liggéey euh, le 26 euh, mercredi 26 ñu monté woon rond juuti ba euh, bu mu monté ba ay ay 23 heures ay 2 heures du matin yooyu ci la ay xale yoroon oto jóge Thiès fekk ci rond juuti ba Rufisque mbëkk ko diri ko rey ko bañ a taxaw daw daw dem seen yoon. Euh, donc euh, euh, Lat Grand dee sur le coup ñu xëy jeudi jël Lat Grand yóbbu ko n'est-ce pas hôpital Aristide Le Dantec vendredi ñu ñu jébal ko borom ci dëkk bi nga xamante fa fa la Lat Grand fekk baax voilà donc ñu ubbi enquête ba jàpp xale yooyu noonu n'est-ce pas jébal leen procureur de la République voilà léegi nag ñun suñu bopp ñu doon déglu justice Euh, lan lay décider exactement parce que waa police def nañ seen liggéey traqué nañ booy vraiment ba jébal ko ba jébal leen procureur de la république léegi maintenant euh, waa waa tribunal ñoom ñoo ci desoon daal. jamono ji dem ngeen ci justice ba tribunal des na ci tribunal lan la wax ci àtte boobu. waaw ñun euh, jugement bi bu mu commencé mooy jugement bu ñu gaawantuur lool. waaw ñu duñu ñu tay di ko wax jugement dañu ko gaawantu lool après maintenant ñun tamit bi ñu ko jugé ba pare ñu doon déglu lan la tribunal décidé euh, finalement ba verdict bi daanoo le 10 juin euh, suñu avocat dem gis ñi nga xamante ne ñoo nekkoon juge yi laaj leen lan moo nekkoon décision bi euh, mais li nga xamante ne moom lañ ca jële mooy xale yi dafa ñaaw te boobu yow dañu leen libéré kenn ci ñoom teewuñ ko ba mu def chauffeur bi chauffeur bi nga xamante ne moo doon dawal oto bi rek la ñu tey woon la ñu tey woon euh, kaso ci lu ñu wax euh, chauffeur bi ñu ngi ko tëjoon six mois de prison dont trois mois ferme donc euh, boo seetloo le vingt sept mai ba tey ñu sommes le six le six septembre xale boobu génn na ndax trois mois ferme mu waroon a tëdd jeex na donc instant ñibbi nag seen kër maintenant mu nekk lu ñu jaaxal lu ñu bett lool ñun famille bi parce que dañoo jàpp que ne bu ñuy reyee ci anam yooyu policier bi nekkoon ci service am ñu fekk ko fa rey ko ñi ko ñi def ñaawte boobu wala ñi laaloon ñaaw ñaawte boobu yëpp ñu jàppoon leen ba yóbbu leen procureur waa tribunal jékki-jékki libéré xale yi comme quoi par exemple mel na ni ñoom defuñu dara ñun loolu dinañ ko ñaawlu lool. Euh, leneen li ca topp mooy euh, bu ñu gaawantoo jugement bi gaawantu libéré xele yooyu ñun suñu bopp. décision bi maanaam procès verbal tribunal ba léegi jotaguñu ko waaw maanaam waa tribunal dañoo bloqué li nga xamante moo nag procès verbal jugement bi ba léegi mënuñ ci jot te tant procès verbal jugement boobu jotuñ ci mënuñu topp dara mënuñu def dara ni intérêt civil ni def ay yeneen poursuites yoo xamante ne yoon Sénégal may nañu ko. ndax àtte bi yéen demoon ngeen wala mën nga ñëw nettali àtte bi nan la demee woon ate bii mën naa wax ne ñun euh, grand yi fa demoon euh, dañoo demoon kese pour seetaan ndaxte jotuñu convocation te kenn aussi woowu leen à la barre pour ñu mën a jël kàddu donc bu ñu ko yëgee euh, ku ñu ko yëgal c'est pas officiel def ñu woo téléphone ne xele yi mën na am ñu jugé leen suba loolu lañ ci amee woon suñu grand yi nekkoon Dakar gaawantu daw mercredi boobu seetaan si eh, jugement bi mais ñoom en tant que spectateur la ñu nekkoon ci audience bi comme ñëpp euh, boo seetloo mbir mi nu mu demee nga xam ne ay tappale kese moo ci am ak par parloo kese ndaxte gaawantu leen jugement bi gaawantu libéré xele yi. te instant li nga xamante ne moom moo mooy droit famille bi pour ñu jot ci ba léegi famille bi jotu ci maanaam la décision officielle du tribunal te tant que famille bi jotu jotu ci ñun instant yi mu ñu def dara dañoo mën a toog rek di seetaan donc loolu nag nekk loo xam ne dañ koy ñaawlu lool di ko naqari lool ñun famille bi très sincèrement waaw ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax waaw donc euh, li ma ci teg mooy. dañoo war a xoolaat bu baax euh, suñu doxalin surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ñoom ñooy atte Sénégal muy juge yi parce que yow mënoo loolu am policier bu nekkoon en service am ñu fekk ko fa rey ko ci euh, ñi ñi ko def ñi jëw ñaaw ñi def ñaawte boobu yoruñu benn kayit oto bi amoon kayit bu valable xale yi tamit def ñaawte boobu amoon benn permis loolu yëpp ñu jël ko teg ko fële boo ko seetloo waa police euh, sept chefs d'incubation la ñu infligé woon booy yi mais ci kanamu tribunal daa mel ni euh, sept chefs d'incubation yooyu nga xamante ne moom la police defoon ci procès verbal bi daa mel ni waa justice maanaam ñu doon juger affaire bi daa mel ni ñoom faalewuñ ci dara ndaxte xale yi génn nañ. benn xele moo desoon te en principe war na génn instant suñu bopp moo ñu fexe ba jot ci décision officielle bi mu nekk loo xamante ne vraiment ay parparloo da ci am ay tappale di ci am te incha allah rabi lépp loo xamante ne yoon may nañu ko incha allah dinañ ko topp ba mu jeex tàkk waaw dinañ ko topp ba mu jeex tàkk. ndax amoon ngeen avocat bu leen jàppale ci seen dossier bi. ñun au départ du de ci dossier bi amuñu woon avocat ndaxte affaire bi ñu bettoon hmm. mais bi ñu jugee xale yi ba pare ñuy xaar décision bi. ci lañu jël avocat maître Omar Diouf maître Omar Diouf instant yi mu ngi suivre dossier bi de près daanaka de temps en temps dafay jaar di laajte ndax décision officielle bi génnul pour moom mooy jël procès verbal bi ñu mun a topp li ci des mais de temps en temps dañuy déggan téléphone def may naan ba léegi gars yi génnewuñu procès verbal bi loolu nekk loo xamante vraiment euh, jaaxal nañu lool te aussi ñu ngi koy naqarlu aussi waaw moo tax tey ñu bugg koo wax ba waa Sénégal yëpp dégg ci et tous les hommes épris de de justice aussi ñoom mën a mën mën mën ci dégg. d'accord ndax bi mbir bi amee police def na taxawaay boo xam ne yéen euh, jàpp ngeen ne rafet na ci biir ndax police jàppale na leen ci mbir moomu. waa police je crois que ñoom ci seen bopp daa am fu ñu mën a yem ci dossier bi euh, affaire ba mu amee police traqué na xale yi. jàpp na ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo laale woon ci mbir mi euh, dressé na un procès verbal euh, def na ci sept chefs d' incubation yoo xamante ne vraiment waroon a permettre booy sax yóbbu la instruction boog waxtuma nag waaw en plus de cela aussi euh, tous les papiers afférents à la mort de Lat Grand Ndiaye ñoom toppatoo nañ ko benn Lat Grand Ndiaye dans son dans son village natal vraiment jébal ko borom boobu ba léegi aussi les autorités de la police. maa ngi dégganteeg ñoom par rapport yeneen kayit yi nga xamante ne ñoom la ñu war a wut ñu ngi ñu ngi ci jàppale bu baax a baax a baax man damaa jàppate côté police vraiment def nañ seen wargal mais non seulement liggéey police wala liggéey gendarmerie toujours ci affaire bu mel noonu justice moo leen newal doole justice moo leen newal doole parce que bu affaire bi amee police traqué na xale yi jàpp na leen yóbbu na leen procureur mais justice Tito Sylla grand bi yaakaar naa moom mooy newal doole police ndaxte li nga xamante ne moom la ñu xaati moon que ne xale yi ñaawteef bi la ñu def justice Sénégal tenir ci en compte ndax bu ci tenir en compte kon du libé libéré xele yi waaw loolu moo tax ma ne euh, police wala gendarmerie wala homme de tenue ñu ngi def seen liggéey mais des fois seen liggéey yëpp euh, waa justice ñoom ñoo ko yàq parce que bu ñu bu ñu leen yóbbee dossier euh, duñu ko duñu ko doxalee nu mu waree donc loolu nekk loo xamante ne vraiment euh, ça n'honore pas notre police nationale quoi. ñetti weer jàpp ñeenti weer Lat Ndiaye dëddu bàyyi soxna ak doom jaboot gi naka la ñu dundee. njaboot bi naqar ndax Lat Grand Ndiaye kenn mënu ko fàtte ci njabootam. kenn mënu ko fàtte oti ci xaritam collègue am yi aussi mënuñ ko fàtte waaw d'ailleurs collègue yi dañuy def geste bu noble maanaam collègue Lat Grand Ndiaye yi euh, ñu ngi jàppale la femme de Lat Grand ak doom yi nga xamante ne bant yi nga xam ne moom la fi bàyyi donc euh, famille bi moom ba léegi ñu ngi ko ñu ngi jooy Lat Grand di réclamer pour que justice soit faite parce que Lat Grand dafa nekkoon koo xamante ne vraiment euh, ne serait-ce que mu soloon tenue bi dans la famille rek ça faisait la fierté de la famille quoi c'est ça donc vraiment ñu ngi koy jooy ba léegi vraiment di ko ñaan aussi yàlla xaale ko aljanna ndax euh, comme xale yi jàppoo da ngeen a ñaaw njort ne xale yi dañu am ay branlon wala ñu àttee noonu bàyyi leen. Euh, en tout cas lañ leen toppee woon. mu jéggal lañ leen toppee woon yëpp mujjee mujjee mujjee wuñ koo def ndax da ngeen a jort ne dañu am ndimbal ci kaw. boo seetloo les charges de la polis ont été très sur les gosses mais loolu ci kanamu juge yi zéro lañ ko def dañ ko factoriser par zéro euh, loolu moo tax ñu xalaat que ne am na vraiment branlo bu ci dugg am na vraiment branlo bu ci dugg parce que boo xoolee jugement bi nu mu demee ñu gaawantu juger xale yi. gaawantu libéré leen nga xam ne donc am na li nga xamante ne moom mu ngi ci suuf loo xamante ne moom mooy moom moo moom mooy moom mooy moom mooy influencer justice pour mu doxale nu mu doxale waaw te loolu yëpp ci kaw la rek waaw je considère que tout l'affaire a été fomentée n'est-ce pas ci kaw maanaam xale yi seen seen seen seen wajur dañoo agir ci kaw n'est-ce pas pour que booy mën a am liberté pour que booy du ñu mën a tëdd loolu daal moom moo ci am branlon dëggantaan am na ci loolu ñëpp xam nañ ko te lool aussi ñun loolu la ñu jàpp ñun famille bi aussi. d'accord lan ngeen am pour ñaan ko kàddu yoo xam ne moom ngay tëjee. kàddu yu may tëjee mooy décision officielle bi le verdict qui a été rendu le 10 juin pour l'affaire Lat Grand Ndiaye dañoo bëgg la décision officielle ñiy jugé woon affaire bi dañoo bëggoon mu génne ñu génne ñu la décision officielle comme ça ñun ñu suñu avocat jël ko. mun mun ko mun a mun a mun a mun a wéyal liggéey bi waaw waaw ñu mun a def suñu appel mun a toppi suñu intérêt civil loolu la ñu laaj vraiment ñi nga xam ne ñoo jugé woon affaire Latmingué Ndiaye bi Omar Diouf mu ngi koy mu ngi koy xaar en tant que avocat mu mu ngi dem foofu di ko laajte mais ba léegi ñetti weer a ngi nii nous sommes quatrième mois te DG officiel bi mënul génn te booy yi ñoom ñëpp libéré nañ leen ñibbi na seen kër donc ñun famille ñoo ci def ba léegi ak suñu naqar donc di réclamer li nga xamante ne aussi suñu droit la ñi nga xamante ne ñoo jugeoon affaire Lat Grand bi ñu gaaw vraiment signer décision bi ak lépp lu mu li décision war a àndal comme ça ñu jël ko avocat suñu avocat Omar Diouf maître Omar Diouf jël ko ñu mën a continuer liggéey bi dëggantaan jaay waaw parce que bi moom duñ ko mës a bàyyi lépp loo xamante ne yoon may nañu ko rek incha allah rabi nañ ko topp ba mu jeex tàkk. ndax demoon ngeen seeti droit de l'hommiste yi comme ñi nga xam ne ñoo fi xeex ak ak yelleefu doomu aadama. toogook ñoom ndax defoon nañ ñoom aussi communiqué pour jàppale ci xeex boobu noonu. les défenseurs du droit de l'homme désolé de le dire mais ñun ñoom waxuñ ci dara te yaakaar naa dossier la grand bi euh, Sénégal ñëpp ñoo ko dégg Sénégal ñëpp ñoo ko dégg y a un autre policier qui a été tué à Mbour Biaye monsieur Biaye maa ngi ko ñaan yàlla xaaral ko aljanna pratiquement boo seetloo dans le même gendarme bi dans la situation te dégguñu ba léegi les défenseurs des droits de l'homme wax ci yaa ngi dégg ñun demuñu seeti les défenseurs des droits de l'homme parce que damaa jàpp que ne ñoom dañoo war a wéyal seen liggéey war ñu xaar ñun ñu ñëw seet si leen pour ñu war a wax wala ñu war a jàpp ci dossier la Grand Ndiaye bi no dañoo war a def seen liggéey parce que vraiment ñoom ñoo fi nekk vraiment pour sàmm ak ak yelleefu doomu aadama je